xamante ne moo ñu fi indi woon tey jàng nañ ci lu bëri te jëlee nañ fa lu bëri loo xam ne wax dëgg yàlla ci suñu liggéey ëllëg suñu def dinañ ko ci boole dugal ko si suñu action ba nga xamante ne suñ jëflante ak population bi suñ jëflante ak nit ñi nga xamante ne ñun ñoo leen war a jox sécurité gën a yemb te gën a yomb te gën a baax àllarba yooyu mbir moo xam ne la dañ koy continuer mosoon na fi daan am ñu tax arrêté woon ko waaye ñun dañoo décider ne si suñ magistère maanaam période bi nga xamante ne dañuy jiite police incha allahu nañ ko jéem a dekkalaat parce que dafa amoon njëriñ ci la ñuy waxtaan ak population yi la ñuy waxtaan ak nit ñi parce que dañuy soxla dégg li ñuy nit ñi di wax soxla aussi ñun aussi nit ñi di ñu dégg communication boobu dafa war a am suñu diggante. lépp loo xam ne war nañ ko tënk mu jëm ci intérêt Sénégal. war nañ cee waxtaan ak nit ñi war nañ cee sottante xalaat nit war nañ cee sottante xalaat ak ñëpp donc loolu moo tax ñu soxla di waxtaan ci suñu biir li ñuy waxtaanee du loo xam ne dañ koy tànn dañ koy saytu waxtaan ceeg ñi nga xamante ne mooy askan wi waxtaan ceeg ñi nga xamante ne mooy jàngalekat yi ñi nga xamante ne ñooy universitaires yeeg étudiants yeeg élèves yeeg ñëpp pour jël li nga xamante ne moo intérêt société bi ñu waxtaan ci parce que nag ñun ñëpp ay sénégalais lañ bu lépp weesoo suñ suñu réew moo ñu ñor peut-être benn jour boo xam ne dinañ am journaliste mu bokk ci ñi nga xamante ne mooy panélistes yi ñu wax ci diggante ñun ak journalistes yi force de défense ak journalistes yi lan moo war a nekk suñ taxawaay parce que lu am solo la lu am solo la yéen ay génnee li nga xamante ne moom la ñuy liggéey yéen a mun mettre en valeur li nga xamante ne moom la ñuy liggéey li nga xamante ne mooy message yi nga xamante ne bëgg nañ ko jàllale ci population bi pour seen kaaraange yéen ñu ko mun génneel